nit du du du du du parce que bu ñuy wax homme d'état aussi dafa am absurdité sax gars yi li glisser ci biir de tous les candidats politiques lequel est le commis d'état ci candidat yi muju passé en 2012 wax ma kan mo ci commis d'état c'est Ousmane Sonko qui est commis d'état parce que moom moo jàng état en réalité ci administration li ñuy wax l'administration centrale état na muy fonctionner waxuma côté politique de mais le moo jàng état Macky c'est un géologue. mais est-ce que sénégalais yi xam nañ loolu tey booy waxtaan ak mag dañ na naan Ousmane Sonko duñ ko dénk suñu réew parce que amul expérience politique. mais d' accord loolu nag mooy formatage bu ñu am xam nga ordinateur sa match sa ordinateur boo amee ordinateur nga yi nga sentir nii lordinateur ordinateur n' plus performant dafa am application yoo xamante ne doxatul looy def doo te doo doo application yi télécharger yeneen. Mm-hmm. tu es obligé de le faire sinon ça ordinateur de marché sa téléphone dafay jékki-jékki am ay ay mu ralentir ça veut dire que amna application yu koy diisal yi tax mënul dem lolu fofu lañ ñu té fofu nak application yu bési moy la philosophie et le projet de PASTEF c'est-à-dire que Lolo, on est conscient que nous, on a on y a encore du chemin à faire ci conscience sénégalais Il faut ba ñu dindi kii yooyu hier yooyu les écailles yi de def seen bët ni PASTEF c'est un parti de jeunes Ousmane amul expérience mais Ousmane mënul diriger le pays seul quand même Mhm. Ça veut dire que il va s'attacher les services des meilleurs Sénégalais dans tous les domaines, sans parti pris. proposer dans les directions, par exemple, désormais, on va proposer, on va faire appel à candidature. Direction, Bodjele Lumeli Sénélec, ou SDE, ou ben direction, on fait appel à candidature. Nous présentons les trois meilleures candidatures, moi, je choisir les trois meilleures candidatures. Donc ça veut dire que projet bobu c'est vrai munul jàll noonu parce que pan bu fuk di gas fuk di suul dañ ne kàmb du gam pënd mooy am mais ñun dinañ fexé ba gas gas bobu noonu ba sénégalais mu dugg ci bop sénégalais lolu moy suñu mission mooy mission patriote bu né té lolu ça ne doit pas se limiter aux patriotes dafa war a jéggi patriote parce que Sénégal bu baxé ñu ñëpp la baxal donc mission bobu lañ nek du yomb nak mais fa la ñuy mais mais nit ñi li leen tax ragal ci seen leader moy yéen da ngeen ne bëreet rek yóotu réew rampe wolen ay tey ñëw ci ku mel ni président suñu mam Ablaye war ak fi mu jaar yëpp bi ñu koy dénk réew mi gëmon na ni ki ni buñ ko ko dénkee euh, dina ko changer parce que dafa rampe. Mhm. mais yeen seen leader rampe wul bëreet nga bëgg a laaj réew. wa mais looloo tax ma la. Euh, parce que laaj réew mi ci lan la tënku en fait c'est quoi je dirais est-ce que amna une école pour diriger un pays est-ce que amna fenen école bo xamantene pour président. Mhm. mais bo ñëw ci jamonoy PS ñu fi nekkoon non réew mi même pour daan toj. Oui mais fan le Sénégal n'est pas... parce que nak, dama il faut pas que nous ñu ñu ñu ñu de jugement et d'appréciation parce que la finalité d'une gestion c'est que nous allons le pays d'un point A à un point B wax ma fan le Sénégal parce que li ñuy nous dit si à la fin le Sénégal est un ci ça veut dire que mon sens. l'histoire a montré que les meilleurs présidents sont ceux qui n'ont jamais été dans des appareils d'État structurés Nous nga xamante dañuy dafa jot ñu jog par pour suñu dëkk ñu def fa loo xamante ne kenn fa ça veut dire que loolu noonu c'est un alibi ak prétexte la boo xamante ne bu suñu adversaire yi di distiller euh, def pernicieusement ci conscience sénégalaise pour que nit ñi ragal Pastef mais en réalité le projet est porté par un leader porté par des jeunes porté par des adultes parce que dafa am ñoo xamante ni ñu ngi ci biir manifester wu ñu parce que peut-être parce que euh, bëgguñu pour le moment manifesté wu mais ce n'est pas que des jeunes ñoo nekk ci biir Pastef te encore une fois de plus ko xamul foo jëm dalool fa nga jógee ñun dañu toll foo xamante ni on a une offre nouvelle offre boobu nag tu ne peux pas faire du neuf avec du vieux ce n'est pas possible parce que on ne pourra jamais faire du neuf avec du vieux nous nous voulons faire du neuf voilà pourquoi PASSEF est né du avec des idées nouvelles avec une philosophie boo xam ku ñëw da ngay arrimé wu ci philosophie boobu on a un projet qui ne va pas s'altérer lolu mu lañ gëm dans Pastef motax nga gis ni c'est un parti attrayant c'est-à-dire dafay nit ñi euh, dañuy ñëw té kenn du leen wax ñëw leen parce que ku wéet ak sa borom xamni Pastef limi muy proposé gis naa ci sama bop gis naa ci sama ëllëgu doom gis naa ci sama ëllëgu njabot c'est ça le plus important dans le projet. naka ngeen dundé ciow li nga xamante ni na fa ni sérénité. am ngeen ci yaakaar. bu baax. Hmm? ci bu baax à tous les niveaux xam nga lii du gulet xëy na dañoo changer euh, tactique dañu explorer piste yëpp ba mu des la plus la plus compliquée à justifier mooy c'est ta parole contre ma parole xam nga wër nañu fu ne gisuñu dara ñu ne léegi la ñu desee suñu sànni tàccu mooy ñu fexe ba la partie la plus sensible la plus complexe boo xamante ne bu ci c'est ta parole contre ma parole ce qui veut dire que même bu ma amulee ci yow mais li ñuy wax rek say say waxul dëgg waaye yàq na xel fa lañ toll mais dinañu am effet contraire parce que fan yi loolu wone na ko plus que jamais engouement bi am ci Pastef fan yi nii dafa dafay c'est dafay dawloo yaram ça prouve que euh, gars yi dañoo laaj. dañoo laaj dañoo laaj. erreur mënu fa am. te dinaa la wax. xam nga fan la erreur bi nekk. waaw man ngi lay déglu. tey bu ñu nee président Ousmane Sonko. Mhm. ak li ñu koy taxé yëpp. Mhm. tey moom mu dem ba fàtte ni tey moom dañ koy rëbb. Mhm. mu gën di dem ci ay salon de massage loolu du erreur. pour man du erreur parce que balaa mooy yegg ci salon de massage bi dafa am d'abord fu mu jaar. parce que bi mu bu ñu parce que neen il a expliqué sa pathologie dafa yàgg. mu dem ci médecin yi dans une structure officielle di def ay kinésie mais ça ne marchait pas mm-hmm. parce que moi je suis de la santé xam na baax li may mm-hmm. des fois da ngay toll foo xam dem ci les meilleurs des spécialistes mais euh, tu, tu tournes en rond de trouver une solution à ton, à ton problème. Parce que la maladie, c'est une question d'équilibre. Si les équilibres sont rompus, la maladie s'installe. Je ne vais pas détail parce que mais li ma bëgg wax moy bi Sultan, ba gisul tan dafa dem ci cabinet ci chinois mu commencé mais la ko fa jëlé parce que dafa ni par séance 200 000, nga wara peut-être 3 4 séances ci mois bi parce que de di ay douleur lombaire la bu à tout moment dafa di livre ce qui veut dire que la station assise lay gën def mënul taxaw di bind fay tok forcément fay reposer ci say cervical reposer ci sa dos donc sa lombaire yi fay da fay am ay ay surcharge de poids bo xamantene fo foo jaar mu metti mais mënul dem di fay fale parce que mom amul xaalis bu muy fété mënul jël xaalis partiom parce que c'est quelqu'un qui tient au respect des règles mm-hmm. muy bu doon keneen parti am financé ko mu xamné mu salaire de député il a divisé en trois benen parti bi parti bi moko mom benen bi les femmes transformatrices de la Casamance benen bi la pouponnière de Bongré mm-hmm li ko dese expertise fiscale le mën yakar ak ay xarmatam mo gis ni tay ji les entreprises pour la plupart bo yoré ngour bu melni ngour nguur Macky Sall entreprise du aventure di lay jox marché parce que bu la joxee am am marché gay yi teg ko ko ay daan Mhm. donc il se retrouve dans une situation très compliquée Il war a 200 000. Nous, un ami proposé ko connaissance am man par contre fii laay dem des des problèmes de de il y a dem ñu maase et j'ai d'excellents résultats mu dem fois, bu mu demee li mu par mesure de présidence est-ce que vous êtes agréé est-ce que vous êtes reconnu ñu génneel ko këyit ne ko agrément reconnu par l'État donc c'est une structure reconnue par l'État c'est ils ne sont pas clandestins mhm. mais après nous mënul xam ka fa ne kan la te ku ne mënoo bind fi certificat de bonne vie et merci ci sa sa sa jë mënul nekk mu am confiance mu dem te loolu noonu depuis six mois plus de six mois mu ngi fay def ay massage am bu toogee ba sentir douleur bi mu dem bu mënee dem defi natation mu dem su mënulee mu dem ñu defal ko massage en fait li ma bëgg wax foofu mooy lenn mhm. dañu war a xeex ba kenn ku ne sa dëkk mu bañ a am dans ton propre pays où tu es né nga bañ mu bañ a am sens interdit. Parce qu'on voudrait nous faire croire que un leader, fut l'opposant le plus recherché, il doit avoir des sens interdits. Ça veut dire que dans la, la politique, il normal. Parce que dans politique, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques. On devrait pouvoir, ce pays-là, je veux dire par là que yo war nga mëna circuler fi nga yaakar ne bo fa demandez lui un problème de santé combien de médecins ils ont fait combien de cabinets ils ont fait avant une satisfaction pourquoi quelqu'un qui a une satisfaction me sentir ni vraiment moi mes douleurs mon problème de santé au nom de quoi parce que c'est un leader non dès l'instant ce serait envoyer un message contraire à ce que lui il prône mm-hmm parce que ku comprendre philosophie Ousmane Sonko c'est pas pour rien mu nekk école jàngi école publique ba paré baye dom école publique dafa bëgg a woon nit ñi nii bu fekkente ne dëkk bi mo ñu ñor nañ fexé ba installer fi ci dëkk bi infrastructure yëpp bu ko défé, kenn dotul soxla dem parce que xaalis bi ngay dem di fay bitum rew, xajna ci dëkk bi il a un projet dans le dans PASTEF pour que les agences, structure structures, administration renouveler suñu immeuble. nous dem ci suñu nous moniser suñu menuisier parce que nous devons valoriser notre production locale consommer local ça veut dire que c'est pas normal c'est une honte yow nga nekk ab njiit nga am tawat ñu jox la ay milliards jox la lépp nga am tawat nga dem faju faju bitim réew ñi ko mënul def ñu ñuy def il en fait il renvoie un mauvais s'il le fait il renvoie un mauvais message pour des nag ba xëj na mënul par nécessité vitale peut-être que dina dem. quand daal yéen ni dem bi dem foofu c'est normal. moi pour moi c'est normal. parce que man gars yi mënuñu comprendre peut-être que man ni ma nekk ci santé moo man dans le cadre de l'exercice de mes fonctions damay gis ay femmes yo xamné ne bu ñu ñëwee il préfère que man ma nekk ak ñom waxtaan ak ñom accueillir leen dans le cadre de mon travail ma def ko que benen jigen leen ko def mm-hmm. c'est une question de sensation c'est une question de confiance mm-hmm. donc loolu mënu ñu ci sukkandiku pour ŋàññi Ousmane Sonko il a fa la amee jàmm de mu et l'ailleurs il a dit dans la conférence mune man fala fas dem parce que fala am jàmm légui nak parti bi peut-être c'est vrai que ken ku ne mun nga ci am sa appréciation né oui c'est vrai que Ousmane tay nekk nekkatul moom kese mbooloo moo ànd ak mom il doit tenir compte de cela mais Ousmane nit la té Ousmane ku ko xam ku ko djégé xam ni c'est quelqu'un qui est naturel qui est très modeste et qui est très humble gis nga xadaar bu muy woné non en intimité té nit kessé la te nag boo buggee euh, xëcc sa peuple vers les sommets da nga wara wacc bu fekk ci peuple bi mhm. hélas c'est pas ce que nous avons aujourd'hui yi monarque la ñu am ben empereur mo nek ci kaw té xam fu ñu jógee ñun ñëpp xam nañu dans quelles conditions il est né comment on l'a fabriqué mais il a oublié ses origines ku faté la fal foli la fay yomb. Mhm. looy tàggatoo. donc euh limay tàggatoo moy Sénégal euh ñoko bokk c'est la chose la plus chère que nous avons en commun. Politique, c'est pas une guerre. Politique, c'est des projets différents, c'est une confrontation d'idées. Nous ne pouvons pas nous confronter suñu proposer un projet aux populations pour pare le peuple souverain nous choisir ça a été toujours le combat de Pastef. Nous sommes mm-hmm. devant un président bu bëgg de bëree c'est-à-dire bëgg ñëpp ba mu démocratie.